Sandooy laa tuddal eh, dëkk Mbengeen di membre ci ànd taxawu Yoff tey li ñu fi indi woon benn benn parti la ci journée yi nga xam ne moom la ñuy organiser eh, jagleel ko la collectivité lébu eh, di ko defe fii ci yoof mu am ay fànn yu bare yoo xam ne yi daf ci am donc démb ci maire yi def nañ benn symposium waxtaan ci wàllu paix ak développement durable euh, mu nekkoon waxtaan wu am solo euh, ay éminent boroom xam-xam yu am solo doon ko def lu l'occurrence ku mel ni imam Moustapha Sam ñu xam ko bu baax ràññee ko si xam-xamam bu am solo mu defal ñu fa exposé bu am solo suivi nag ak ñeneen ñoo xam ne euh, ñoom la àndaloon Euh, ñu def fa waxtaan ci wàllu vraiment paix ak développement durable ah, position bi nga xam ne noonu la ko lébu yi gisee ak noonu la ko lébu yi daan defee euh, moom lañ fa waxtaanee mu nekkoon waxtaan wa am solo je pense que ku dugg si biir information yi di nga ko am boo ko dégloo di nga am waxtaan wa am solo euh, ñu ñëw fi tey nag doon def benn état bu am solo mooy dañuy faral buy ñëw ñuy jàng ay kaamil yu bare à travers la communauté lébu village yëpp dañ fay joxe ay kaamil di ko fa ñaan tey mu nekkoon juru synthèse ci kaamil yooyu maanaam dañu doon tëj kaamil yi donc bi ñu tëjee kaamil yi ba pare. ñu prévoiroon euh, ay membre yoo xam ne yi ay ay ay sage lañ léegi dañ daan àndandoo dañ nekkoon ak ñun seen ak ndaw ñu ànd ak ñun bu ñu yëkk ñu yëkkati bu ñuy bale ñuy bale donc ñu dem ba àgg benn âge bi am ay xale donc ñu bëggoon leen rendre un hommage euh, euh, defal leen ay diplôme pour wan nit ñi ne vraiment ñii dañ doon ànd ak ñoom démb Euh, ñu dem ba màgget mais ba léegi bàyyiwuñu ñu donc pour xale yi xam ne daal lii lu sérieux la donc lu yàgg la lu sérieux la te lépp mu ngi dem rek ci li nga xam ne ni vraiment mooy taxawu yoof ci développement paix ak social loolu daal mooy li nga xam ne euh, moom lañ doon def tey euh, suba ñu war ko àggali comme ni ngeen ko xamee ci cérémonie bu mag bi nga xam ne moom la ñuy def wala si bayaal bi mu nekk une journée qui sera culturelle. Ce sera une journée typiquement culturelle. donc dina am ay messages yu ñu fa lancé y aura grand serigne ak la dignité tous les tous les tous les dignitaires libu incha allah dinañ fa teew euh, loolu mooy li nga xam ne moo koy tëj en présence bien sûr euh, du grand parrain euh, le maire de Morolan avec la communauté Ndout la communauté Ndout sera là-bas incha allah demee ñu war a tëj cérémonie mais tey daal liñ mën a jàpp mooy tey lañ doon tëj kaamil alxuraan yi nga xam moom la ñuy jiital. joxe waale si vraiment ay diplôme yoo xam ne diplôme d'honneur la pour vraiment sages yi nga xam ne ñoo bokk si ànd taxaw yoof euh, maa ngi fàtte aussi nga baal ma euh, demain matin incha allah saltige dina sol vraiment sa tenue traditionnelle euh, dugg si maam yi le matin def yi nga xam ne nii moom la suñu maam yi daan def tuuru ñaan ñaanu aada incha allah le matin ce sera une journée très chargée pour lui mais il va tenir le coup incha allah ngeen baal ñu xam